thème bi moom xam ngeen ko mooy sécurité alimentaire ak autosuffisance alimentaire mooy que ni doomu aadama bi dafa war a mën a dundal boppam te it am nañu tool yi am nañu euh, nit ñi am nañu tool yi am nañu nit ñi am nañu itam euh, ndox mi kon dafay jaadu loolu président wax daf ci sax fekk CNCR ak ASPRO ñi nga xam ne ñoo ŋànk kuréelu baykat sàmm sàmmkat nappkat ñun kañ li ñu koy ñaan mooy incha allahu rabbi dégg nañu lancement bi mu def pare nañ pour fekk si ko parce que Sénégal lay liggéeyal ñun itam Sénégal moo ñu ñor moom la ñuy liggéeyal mais président maa ngi lay lancer un appel géej nañu la recevoir FIARA depuis 2006 booba yaa ngi doon premier ministre Farba sengoor nekk ministre de. l'agriculture ñu lay ñaan compte tenu thème bi nga xam ni mooy sa préoccupation di préoccupation boo xam ne préoccupation Sénégal la préoccupation Afrique la préoccupation mondiale la ñun ñu bay ci suñu laaj pour loolu nag dañu lay ñaan dégg nañu sa appel ñun itam ñu ngi lay woo nga ñëw ci ouverture FIARA nga ñëw ñu àndandoo jëlan lanceendoo appel bi baykat yëpp conscient ci ñu jëlandoo engagement ba nga xam ni baykat bu ne di nga am benn parcelle di nga am benn tool boo xam ne di nga fa bay mboq kii bay fa dugub bay fa gerte ba nga xam ni bu ëllëgee la ngay wuti dootul bari waxuma nag dinañu mën a combler vide bi yëpp mais dinañu permettre quand même que ñu am li nga xam ni mooy bay dunde dinañu mën a am indépendance alimentaire un tubaab di ko tuddee la souveraineté alimentaire